assalamualaikum wa Cap TV ma ngi leen nuyu di len ziar man Tafa job bergerie Tafa job ma ngi nuyu wa Cap TV yeb di len ziar di am contentement ci liguey bi ni liguey ci walum élevage ak xari ak fi ngeen ñu fekk di innover bu baaxa baax ci walum li jëm ci élevage bi ñi def lii quoi ma ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp man la Moustapha job yor bergerie Tafa job sama numéro téléphone nek 77 493 88 27 waaw. di len présenter ki mo moy maître Moussa dom bâtonnier yaa ji nekk euh, doomu Issa bu Balla Diagne lañ jël bu jigéen teg ko si Nations Unies mu jur jigéen ñu jël doomu Nations Unies boobu teg ko si si Birame 2 mu jur jigéen ñu teg ko si batañe mu jur kii mooy maître Moussa moom laa indi fii si foire bi ak ay jabaram kii nekk doomu Renaissance Renaissance nekk doomu Nations Unies eh, yaay Renaissance nekk doomu Signor eh, ki nekk doomu Mouride Sadex Mouride Sadex nekk Seexu Picasso ma jëloon ko sama benn grand moññaa Eh, Mourou Sadex nekk do Mourou Sadex nekk doomu Saalum Saalum kii moom moo jur kii ak Jolof Jolof ki ne laam ki nekk doom si Jolof Jolof. Hmm. kii di Ramadan ki nekk doom tamit si doomu renaissance bi kii sëtu Madiba la mooy Nutella nekk sëtu Madiba Madiba nekk sëtu Madiba doomu Bol Bol Bol Bol nekk doomu Madiba quoi. waaw ah, côté yaay ji nekk Washington nekk Washington Washington doomu Boy Séréer. waaw kooku liggéey bu yàgg la hmm. parce que bi man damay wax ne dama ko jël depuis à base. laa commencé def élevage quoi waaw mais ne damay wax ne loolu liggéey bu yàgg la ah, parce que depuis bas âge laa commencé def élevage yàgg bëgg xar waaw loolu la te élevage moom daanaka lii la ak innovation quoi waaw saa su ne da ngay jéem a fexe fu élevage toll nga nekk fa wala nga jéem a xool si lépp looy def ci élevage ñun ñu ngi dégg nga jëm a jëm a jéem a jéem a dox pas boobu wala bokk ci ñu ciy gën a dégg quoi loolu moo waral nga fekk maal bi nekk doom si bâtonnier nekk maal bu am yaakaar mu ñëw fi ak ay njabootam waaw indi fi jolof jolof tamit ak ay njaboot njabootam quoi boole koog ay famille yoo xam ne xëy na élevage yombul waaw jënd bi yombul xare yombutuñu mais dañuy fexe góorgóorlu rek di ñaan ñu borom lépp luñ ciy mbëbët wala ñu bëgg ko mu ñu koy mottali ba heure bu ñu génnee bokk si ñu gën a ràññeeku quoi lool la waaw loolu luñ ci wax mooy que ne neexul waa métti na parce que xont bi fii lañ koy def rek waroon na gën a yomb waaw muy côté ngooñ bi seer na repas bi seer na laitière bi bu njëkk dañ ko doon maye koy jaay waaw te yëpp tolli ko sax léegi bur këppi ko da ngay waaw ah, kon affaire yi moom daanaka buñ ci mënoon gën a dugal suñu loxo muy ñu ñu ñu jiite élevage nekk fii seen loxo ba affaire yi gën a mooy seet dina baax lool te lépp ñun ñoo ko liggéey suñu biir réew lañ koy liggéey quoi kon loolu war nañ ci mën a def war nañ ko mën a defee noo xam ne ñun ñu nekk ci élevage bañ a yëg loolu bu baax a baax parce que li ñuy def day soxla réew ku ci nekk boo xoolee que yaa ngi gis jeunes yi ku ci nekk yaa ngi nekk ci mag ñi tey ku di nga gis sax ñoo xam ne ñoo jël retraite nekk ci élevage bi di ci góorgóorlu kon loolu war nañ ci mën a bàyyi xel bu baax a baax ba ñu siy gis seen bopp gis seen bopp mooy gën a li ñuy jënd di ko utiliser pour pour pour pour jur gi affaire yi gën a nekk daal prix yoo xam ne dina xéwale quoi. waaw yàgg na parce que Moussa moom dafa nekk dama teel a bëgg génn euh, génn fii Sénégal ah 2006 ba may génn jaay naa samay xar depuis 2003 maa ngi yar ay xar. waaw loolu moom amour la boo xam ne moom dama naan dama judd baay yarul maam yarul papa yarul waaw man maa juddu teel a bëgg xar doon yar ay tabaab yi rek yu kenn xamul waaw teel a bëgg daal yar xar moom daanaka ba ma gënee ràññee ba léegi nii fàttaliku ma fan laa tàggoo ay xar quoi fàttaliku ma xanaa daal voyage moom may tàggale ak ñoom te bu ma voyagé moom daanaka sama xel yëpp si ñoom lay nekk quoi. waaw ni ma koy jàppale mooy jëm première chose damay wax ne xar yi eh, moo gën quantité dama koy wax ñu bëree bari nga yor sa sa sa quatre xar benn bu baax moom moo ko gën waaw benn bu baax mooy eh, man éleveur bu débutant damay am damay damay damay yëg-yëg boo xam ne dama lay a jàppale parce que man daa am fu ma jaaroon mu métti trop trop trop te tey daam ñoo xam ne ñu ma jàppale ba tey fàttewu ma leen te bi ñu ma jàppale woon xëy na peut-être ne tey du ma egg si xar yu ma njëkkoon yor ak yi ma yor léegi boo gisee du benn yi bëri bëri yi naa leen ma leen def ma ma boo commencé kooku mal du du jur ah jigéen mooy jur tey bu ma doon conseil dama leen jéem a wax bu ñu mënee am xar yu jigéen muy benn muy ñaar muy ñett loo ci am te mu doon qualité rek moom moo gën waaw loolu moom dëgg la waaw ah, mooy li may wax sànq rek ñoom war nañ see dugal seen loxo bu baax a baax di ñu bàyyi xel ñuy éleveurs yi waaw di ñu bàyyi xel bu baax a baax comme li ngay wax si ndaw yi tey ndaw ñeeg mag ñeeg ñëpp a ngi nekk si élevage bi di ci góorgóorlu Euh, mbir mu mbir mi ñuy utiliser ni mu seeree bu ñu ci dugalee seen loxo. Mm-hmm. xool ni ñu def pour jàppale ñu pour euh, jàppale tamit xëy am nañu ñu nekk ñoo xam ne daanaka si leen yaakaar te loolu yëpp bu ñu ko si dugaloon dinañ si gën a gis seen bopp loolu luy luy gën a gën dong lay doon quoi. parce que xar damay wax ne métti na euh, début bi métti na mais tey boo ci yoree comme qualité bi may wax. Eh, début bi di nga jël xar yi ñoom di dépensé nga dem ba ci biir xar yi dépensé seen bopp nga dem ba ci biir a biir xar yi di dépensé seen bopp léeg-léeg ñu def dara si poche bi waaw noonu duñu jéggaani xar duñ xar parce ku ci nekk rek parce que eh, yaa ngi am benn box boo xam ne di nga jël ay quelques xar defa leen foofu te damay wax ne xar yi xar yi ñuy ji xar bi ci am 8 euh, mois xar bi ñuy jéggaani mu am xar bi moo ëpp doole te moo lay ëpp viande kàddu gu mujj mooy li wax ci élevage bi neex na neexul di ko wax tamit si ñi ñu ñi ñu jiite ñu bàyyi xel bu baax a baax si ñun éleveurs yi mais li ñuy def ñi ñoo ko moom waaw lii gi ñoo ko moom di ko amélioré ba tey ji nii xar yi di am ay maturation yoo xam ne foo am na ñoo xam ne tey suñu ancien fay yal na yàlla yërëm te xare lañu àddina ba ne woon xar tey dina njool muy papay kii duñ ko gëm te tey xar njool na ba am 100 ba ngay gis xar bu am LCS 160 xar di am 177 kilos kon amélioration bi ñu koy def waaw di wax ne nag euh, ñu gën a yokk te dëgëral te tapé xol yi te xam ne mbir mi moom euh, ku ci nekk rek lu ci nekk sa wërsëg rek di ko ci jot quoi te ku ci nekk tamit tur boo ci war a am rek tamit di nga ko ci am quoi ñu rafetal lépp te xam ne xar yi moom xar dong lay doon du doon leneen lu dul xar ñoo leen jox ñu jox ñu naan kooku jox la ñu lekk jox la ñu naan boo ñëwee xam ne lépp dëgg la ko. gën a neex si sàmm mooy booloo bi booloo bu doon dëgg moo ci gën a neex parce que dama jël sama kër léeg dugg fa 4 matin wala 3 heures matin si visite xar laay nekk. kon nag boo ci gisee ñu baax wala nga am ci ñu baax rek man loolu mooy sama bonheur mais du xaalis du dara parce que ñii damay wax ne léeg may def si ñoom sax mais duñ def ci man comprendre nga c'est ça quoi loolu daal man ñu ciy rafet xol bëgg càmm rek te yàlla tax man loolu moom lu may gën a neex la si élevage bi. li ma si gën a métti mooy ñàkk ñàkk booloo léeg-léeg nga gis ñàkk booloo ak gis dara mu baax nga sëgg sa bu côté te loolu moom góomu xol lay indi. waaw góomu xol lay indi lu baax moom boo gisee wax ko du wàññi dara ko waaw sàcc gi bari na lool waaw bari na te léegi criminalisé nañ ko te ba léegi ba léegi ñu ngi gis sàcc bi mu ngi mu gën a am. mooy que ne tey ñaax bi lañ ñaax mooy que ne ñu jëm a fexe. ba ba ba ba numéro yi ngay woot yi nga war a wootee en cas où bu dara jotee ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu def si ñooñu pression ba numéro yi neex a jot ku leen woo jot leen ñuy gaaw di jóg. parce que ngay gis léegi ñu ngi sàcc ñoo xam ne ñu eh, leen di song ay sama boy la ñu yor arme dañuy dañuy yëg ba ñuy bi ñuy commencé bu ñu wootee du ñu jot numéro yi ñu war a jot eh, wala bu ñu wootee jot pour ñu ñëw foofu ñoom duñ ñëw. te loolu rafetlu ma ko parce que boo génnee loolu loolu loolu réew mu arrêté réew mu arrière moo koy def parce que boo génnee fii en de Sénégal numéro lépp loo bëgg muy nu mu mënti doon koo ci woo même pas cinq minutes mu fekk la fa